ziar ziarata mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo eh, di leen wax ne tey si dañ déplacé waa ñëw fii ci Grand Médine plus précisément ñoo ngi tout près de stade Léopold Sédar Senghor seen émission li ci réew mi li ci réew mi sama gars yi lan moo xew instant bi wala boog ci lan lañ jëm lan lañ dëgmal instant bi ñu ne la tabaski waaw ñoo ngi jëm ci fête des moutons tey nag ñu déplacé wu ñëw seet si Euh, un espoir mais benn Baye Fall man Baye Fall bi moom laa gën a jàpp ah mbër la nag mbër la mais man Baye Fall bi moom laa gën a jàpp parce que waaw waa ji jikkoy Baye Fall la yor macha allah hmm, jikkoy Baye Fall la yor moom lay dund yaa ngi may dégg nekk waa yàlla joo xam ne nangoo liggéey gëm boppam nekk koo xam ne lu ko yàlla may bokk na ko ak jaamu yàlla yi man bokk na ci li gën a tax ma ma naw ko jàpp ko mbeur la nak ñu ci yonam ñu ci yonam de ñu koy ñakanté ak gaay ñu ngi entraîner matin midi soir mais instant bi dama ñew fekk ko ci ci daral bi waaw waaw opération tabaski yatam za day jaay ay xar sama gaay waaw waaw ñew leen de ñew leen boy na gaay ñew ñu ñep ñew ak introduction lañ nek gaay ñew leen ñew leen grand medine yatam za ñu ngi fi di jaay ay xar jëm ci tabaski bi mbër mi nag sama gars yi comme ni ma leen ko waxee ah moom mu ngi fii mu ngi fële mu ngi ci làmb ji mais bu xëyee day dem dóori waar bu xëyee dem day day day dóori waar opération tabaski muy jaay ay xar bu tabaski passé mu ngi ci sécurité ci leneen nag leneen mais lépp nag dañ ciy waxtaan parce que tamit sécurité bi ci boppam il faut a ñu waxtaane ko dañuy waxtaane opération tabaski mais côté sécurité bi il faudra ñu waxtaane ko parce que gars yi nee nañu mbëri ay nervi lañu waaw ah waaw gars yi loolu la ñu wax de nee nañ mbëri ay nervi lañu Yatanza mii dey liggéey ci sécurité doomu ndeyam Servot mii day liggéey ci sécurité ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen kon sama gars yi lépp tey dinañ ci waxtaan ci émission bi fii ci Grand Médine seen émission li ci réew mi Yatanza bu école de lutte sàkku xam-xam mooy sama invité rakk ji maa ci loo ne. sant yàlla bu baax naka yi tey. alhamdulilah avant tout lan ngay nuyoo dèjà ñu lay. waaw gannaaw ñu sant yàlla di ah. sant suñu woy di sant monde entier ah. yoo xam ne jërëjëf borom Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Fall nuyu nañ ñëpp siyaar nañ la fa demee loolooy nuyoo xoolal ma lool xoolal kaana bi xoolal kaana bi jëlal kaana bi jëlal kaana bi jël Maodo kaana non non booy jaamun booy yi jaamun booy yi ay booy Maodo kaana yi kaana loo kaana nga lan sa adversaire la mais du la may sens instant bi. non non non du la may sens du la may sens. bu bu ko may na liggéey ba si na na wane lu tax nga nga may ko sens. kaana jóobal ba si kanam dégg nga ah. Eh, dooleel moromam. yaakaar naa du moroom booy yi. du du bëre booy booy kaana yii nii. Eh? dèjà amagatu taw. waaw waaw kii nga xam ne moom day buuxante rek day jàpp. raket yi. raket yi eh, mbër mi. avant tout yetal daa mbër mi. saison ren di bëree nga. looloo bëriwoo daaw nga bëri. daaw nga séeréer sa digganteeg sa digganteeg. booy waalo. non déedéet ko de Jimbori. waaw ma ko nuyoo Pazaz Tawela. champion boobu noonu booy waalo. lu siyaar nga jaay ko ci koy defe naa yaa damm baaraam bi. non damm yow yaa def jëf jëf jëf jëf lu bonte ci ko def. non damm moo ko def. woon. action bee ko laajoo. moom wax dëgg yàlla góor yàlla la borom baax la. jéer la tamit. na fu la def na fayda ndam comprendre nga mais yàlla mi yor ndam yàlla mu ma may ndam ci kawam te du tamit xam nga caay na maanaam mën wala dara quoi jàmbaar mbir yàlla la rek xam nga moom tamit nit ku dal la nit ku dal la nit ku dal la sa waay kaay nii kaay teel nii sa waay kaay nii ñëwal nii ñëwal nii bëri nañ ba pare mais amul benn yoon benn yoon boo xam ne kat na la suñu waay xam nga wax na ma lu ñaaw dépassé wu la benn yoon kon lu ñaaw comprendre nga mm. ah, noonu la fa demee xam na ne daal lamb moo ñu boole ah. te mu jeexee tamit jeex na ko lamb la woon te ba mu jeexee jeex na xaaral ma recadré waat gars yi. rakk ji. Mhm. rakk ji man man man yow man yow sëñ Ba ñaata métier nga yor. Yaranza Yaranza day liggéey de. Hmm. Yaranza ñaar ñaar yow na nga woon menuisier. à part lamb non ji yaa ngi ci. sécurité à maa ngi sama permis chauffeur laa damay dawal. yor nga sa permis. waaw maa ngi sama permis damay dawal chauffeur laa en plus tamit damay dawal saret. yooyu maa ngi ay fas maa ngi ay saret. affaire bu garaaw man moom moo la ëpp. loolu de xaw ma ko ci woon. Ah? Eh? damay jóob rek. kon kon yow yow góorkat waa nga. en plus tamit éleveur laa damay yar. da ngay yar ay xar. damay yar ay xar. Eh. da ngay yar ay xar. tamit damay yar. laarum sax dama koy yar mais. su ma gënee gën a gën a gën a adapté si laarum gën a bëgg laarum yàlla jaay ñi xam naa ne kii mu pël la moom waaw pël la sax mokk pël la si eh, ah, élevage mhm. kenn du ko naataabale mun naa ne xoolal ñëpp ko xam ñëpp ñëpp ñëpp ko xam ci dugal ci yer mu dama war a yer dama maanaam ndax man fekk ci biir kër waaw dama fekk suñu tool sama maam di ko def. sa maam sama maam sama maam moo ko doon def bi sama maam demee ba yàlla jël. sa maam da daan élevé. waaw. ay sa dama ni daal tamit noonu bu mu tuxoo moom it après man ma jël réew mi. ay sa waaw noonu la fa demee. waaw ah. moo tax tey ma ñëw fekk la. yii ci garal bi nga def opération tabaski daaw ndeysaan ni ko gars yi daan ni ko gars yi di waxee defoon nañ ko daaw fekk la déwén dañuy baaxam tam ndeysaan xam nga daaw tamit dama ñëwoon fekk la fi waaw nga nekk ci bagage bi waaw di business waaw ren mu ñëwaat fekkaat la fi te daaw jigéen yi wala <laughs> noonu la fa demee mais daaw joxoo ma doonal de. non mais mooy loolu xaw ma doonal de bu dee affaire daa jeex na ma war a ma waroon woo sax dëgg. waaw leer mais ren day wute. Hmm. yàlla na yàlla suturaal mais mais mais euh, fii si daral bi ah. Hmm? démb démb ban heure lim déggante nga ne ma maa ngi soog a mujj nii. non boobu dama demoon uti jaay ba ni yaa ngi jënd. ba ni yaa ngi jënd ay xar. da ngay di jaay. waaw ah, man damay liggéey dañuy jox. ay ndaw lañ dañuy jóg ñun too toogul fenn di wax wel wel wel ñun liggéey lañ gën ci lañ toll na amee combat dañuy dem bëri ñu mais bu ño amul jeunesse bi ci lañ toll nag ci liggéey lañ toll waaw suñu amee combat dañuy bëri ñu ñu amul combat dañuy liggéey

benn bu góor la benn bu góor la benn bu góor nga ci kër gi. benn kese te du ñu xaar kenn ku ñu liggéey ndax tamit ñun xam nañu lépp lu war foofu ñun ñoo ko war a def. da nga war a faaj wante suñu laaj. ñafe ko bu baax sax. bu dul fii di fee. mais ñafe every time. déggoo ma la ñun ñoom nañ nekk si jàmm rek parce que tamit yéen dafa diis quoi xanaa ne ñun ñu tegu suñu kaw dafa diis. mais tamit yàlla mu ñuy suturaay mu ñuy dimbali ba njënd ñu ñu diis diis diis diis oyof nag tool si suñu borom yàlla gën a oyof ndax moom tamit xam nga yàlla mu ñuy suturaay ba xoolal amaana ñoom jooy ñu fenn demuñu si kenn ñaan ko lenn ndax tamit yàlla mu ñuy suturaal lépp lu ñu xam ne ñu ngi koy partagé ak ñoom loolu la ma dégg ñoom seen bëgg-bëgg mu ndaw mbala mu bari yàlla mu ñuy kàttanal mu ngi koy faj seen soxla comprendre la kon tamit mooy loolu danga dafa benn wax bu solo boo xam ne dégg naa si maam Cheikh Fall doon ko wax mu ne lépp loo xam ne kat maanaam liggéey da koy maye góor war na koy jomba ñaan <laughs> lépp lu liggéey di maye waaw góor yàlla war na koo jomba ñaan parce que jigéen ñi sax dañuy xëy jóg dem faaj nekk si di ñaan dañuy asantuma ak ñun góor yi quoi comprendre nga Yakanza. Yakanza xar yi nu mu demee. xar yi nii xar yi ça dépend nii man lañ gis nii nii rek de mais xar yi nii man li si ëpp man xar yi ma ci def daal lu si ëpp sax. barki alxuraanu kariim nii a sonn ci xar yi nii. équipe la travail d' équipe bi nii nii équipe bi nii gis nii nii bi nii nii ñun ñëpp ñoo fowandoo nii ñoo nekkandoo xale ñun ñëpp lépp lu ñu dund ñoo ko dundandoo. ah lu ñu dund ñu. kon yéen bokk seen grand midi ñoo ñoo bokk lépp laa wax ñoo bokk lépp àndaat bokk di liggéey wóolu ma wax lépp lépp ñoo ko bokk ñoo dawalandoo saret ñoo lépp ñoo ko defandoo ñëpp mais mais ren dégg naa ren ren xar xar bari ñu dégg waaw man boo gisagu ma xar gisagoo xar waaw ndax demoon naa àll ba jëli ji xar mais gisoo gisaguma xar ba pare en plus xar yi seer na xarit loolu lay loolu lay ragal loolu a dégg da ngay def da doon dem jëli ji pour ñëw jaay mais am da ngay dem sax am na si ñoo xam ne dañuy dem ba àll maanaam pour nga jënd sax doo ñeme ndax boo jëndee am na prix yoo xam ne boo jëndee pour nga jaayaat ko pour nga transporter ko ñu indi ko ba fii jaayaat ko am na day métti quoi mais xam nga rek ñun moom mooy loolu ñun ragaluñu dara ñu jàpp nañu tey lépp lu ñu war a am si si suñu borom lay jógee ndax ñun dañuy liggéey quoi <laughs> lu mu métti métti métti métti dañ ko siy xëpp après ñu ñëw liggéey toog xaar yàlla hmm. suñu amee baax na bu ñu ñàkkee tam ñu xam ni yàlla moo dogal loolu lu sant yàlla waaw ndax dañ doon am bu ñu tam dañ koy santee ko tëdd xam nga ren li ñu sikkee sur mooy mooy xar bariwul non man wax dëgg yàlla moom ah yow daaw ñoo nga fi gis daaw waaw damay laaj waaye nag waaye ñoo nga fi daaw ñoo nga fi nga fi est-ce que am nga fooy teg c'est difficile pour nga am foo teg sa tànk sax dafa dafa. man a leneen laa képp ki nga xam ne tam mën nga teel a jënd teelal a jënd nga waa ko teel a ñëw jënd ndax xam nga xar yi nii mu nga gis xar yi nii am na xar si bëri yoo xam ne ñu ngi si place jàmm donc fi gis fekk jar na. bëri laa am na yoo xam ne da nga leen gis si place bi fekk jar na. ay xarum dénkaane la. ay xarum dénkaane. na ñuy jënd ba pare dénkaane ko foofu. da ngay gis koo xam ne day dëkk si appartement amul fu mu yeew xar. Mhm. mu jënd ko bàyyi la ko fi jox la xonte nga koo xonte te bu ñu nee suba la si guddi mënoo jël si xaram loolu moo waral tey ñu si bëri dañuy am problème quoi dañuy ñëw naan non xar yi gars yi dañ aj xar yi c'est que xar yi xaar naa dem ba jour sàng après da ngay dem ba ñu suba la tënk nga ñëw fekk dara di baax après léegi yow da ngay mujj obligé jënd loo xam ne neexu la mhm. teel a la jënd yow mais bul xaar xar manqué pour maanaam nga denc ko tamit yi nii gisal nii xar yi dañ koy yar ni di ko jaay ni mais mënoo si am dërëm liñ siy def lëf lëf lëf tey boo ko doon calculer yàlla mi ma tim xam nga li ma la wax soo da ngay bàyyi yar mais ne ma laaj la question boo xam ne wóoru man ba xam nag du ma ci tontu xar bi gën a moins bi gën a moins cher bi gën a moins cher à partir de ñaata bi gën a moins cher man nag sama xee samay xar ma لو من زمان قريب منهم سير ساسين يعني من أكبر ساسين كان بيس بيجنا مو سير بيجنا مو سير ساسين يعني من كل سنة تخامل خرسان زحمة كل جار المال لا دخل سان كان في الأمر ما خرسان كان لما هو اسم من بيجنا عاوز déggoo ko. gisuma ko dégguma ko sax ba léegi. Hmm? dégguma ko amatul. soixante-quinze mille amatul. yàlla xam na cent mille francs sax. soixante-quinze mille boo ko yoroon tey dugg si àll bi sax pour nga am xar. waaw nit yóbbu na fi ñaari millions yaa démb démb la sama xar ñëw di ma ko yóbbu sept millions si àll bi ñaari xar la ñu bisee ndax ñemewul jënd. ñaari xar la ñu bisee ñaari xar biir Fuuta nag laa la ci biir Fuuta profondeur. ci ci suuf mu xapulaar yi. biir Fuuta doom doom jéeri. profondeur laa la wax. élevage bi moo métti te amuñu ku ñu jàpp. lu leer ni mi di la élevage bi dafa métti. amuñu ku ñu jàppale. lu leer naa la Fallou joxal numéro bi gars yi xam ku la bëgg contacter dèjà parce que tamit gars yi bu ñu naree xaar ba jour yi tamit affaire yi dëgër ak yooyu noonu nañ la teel a woo bu dee dañuy réserver ñu réserver bu dee dañ leen di indiqué fan nga nekk nga indiqué leen ñu ñëw fi numéro bi ñaata la. naa seet moom sama numéro 78 78. 324. 324. 27. 27. 13. 13. waaw wala 77. wala 77. 292. 292. 45. 45. 86. 86. loolooy numéro bi ku woote yaatal gaa ci numéro boobu. di nga ko jot da ngay di livré. boo bëggee ñu jaala ba pare livré la ñun lépp la ñuy def à domicile. fii am na lépp ah. livraison yi toog gars yi gars yi prix dib la. gars yi moom tool ma sama mbokk moom tool ma sama mbokk moom. tool ma sama mbokk moom Bandiraado maa ngi lay nuyu. tur bi nan la. Ah. Ousseynou laa dugg ba ma xamee Cheikh bi. Cheikh bi waaw Ousseynou bu ñëw Cheikh bi Ousseynou Ousane. Euh, sant bi nan la. Sow Sow sant bi baaxul. sant bi baaxul boo déggee pël baaxul. ñu sant saw ak ñu sant ka ñoo tax ñu ne fël baaxul ñaari sant yii saw ak ka ñoo tax ñu ne fël baaxul dañuy jël lu ñu moomul dañuy wax leen wóoru ah. man jaaraa sant man jaaraa sant man noonu la ñun ñëpp a yem saw ka saw ka baaxul ah, waaw man man jaaraa sant waaw waaw waaw ba tey su la neex coow ji ba après dinañ lijjanti loolu mais eh, yow moom moom buñ la buñ la gisee ci ay xar duñ la laaj euh, maanaam lu ci sa yoon pullo kam sa tawi ɗum e bali a wiyata dum ko ko woni hen haaju ma wona pel pel yaga na ci sam n'est ce pas mais aussi en tant que boy town nga n'est ce pas fi nga la dira dakar nga juddoo dakar nga yero dakar nga magge kon yow juddu jeri nga benn instant liggéey bi travail équipe bi nan lay démé travail équipe bi ma am dégo rek dégo dund élevage dund élevage. waaw dund lu métti. comme ni ko saa waxee affaire bi amour la. waaw lu métti loo xam ne day lekk di naan fu mu nekk yow yaa ko fay jël te doo gis kenn ku la jàppale. maanaam. maanaam dañ naan état day jàppale éleveurs yi. jàppale wu la de. état mi jàppale dund fukki weer ak juróom. Mhm. di lekk chaque jour saabu. Mhm. bu nit xëyee may la benn saabu may naa la. déedéet. loolu la ñuy dundal maanaam saabu ñu ñoo koy jënd treize mille quatorze mille bu demee ba. événement bi ñëw nga indi quatre cent moutons ñu jox ku nekk quatre cent jaay la ko cinq mille cinq cent boobu dëmbali na la mm-hmm. Mm-hmm. turu dimbali moo fa nekk mais dimbali ñu ko tur bee fa nekk mais kenn dimbali ñu ñooy dimbali suñu bopp leneen loolu laal ñu ne mu ngi taal bu na wala mu ngi laal te ñuy liggéey duñu leen jàppale te dañu war di encouragé ñuy liggéey ñu ñoo encouragé parce que xam nga kuy dem pour bëggul kuy dem ah kuy dem bëggul kuy dem déedéet wax wax dëgg mais nag mais nag mais nag est ce que tamit élevage bi élevage bi ak saaf comme ni nga ko expliqué comme ni mu commencé jafe instant bi est ce que nekkul risque tamit nit nek ci nek ci lo xamné peut être xamoo ba xam di ci génn wala quelque chose comme ça. comme mu yëg sax yàlla la ne kon lépp looy dund di xam dañ ci génn wala do ci génn kon gëmoo yàlla dafa kullu maa laa yaqaani la wax kon lépp looy def di calculer rek sa sa mais li Fallou wax tamit dañ ci ñëwaat ren gi xar du bari xar du bari xar du mos yomb Sénégal bi Mengenai aku biom. Entah. Mengenai untuk simbari di disko bunyita. Albi ni nafsu albi. Kalau tu gerai dengan orang bismu ini kita alba dai dia. Amkan gaya gaya dia dai. Tahu kalau gerai tu ni saya alam juga jaya. Kalau tu gerai. Kalau tu gerai. Saku. Wah, tu gini aku hari lain kau dah. Gane ñaata ni koy jaayee. 600 lañ ko doon jëndee léegi 2500 lañ koy jëndee. mu daan jar 600 700 francs. waaw léegi 2500 lay jar. sàngoon 3000 lañ ko doon jëndee ñu ngi koy jaayee 7000. saaku ngoon. trois mille lañ ko doon jëndee. ñu ngi ko jaayee léegi sept mille transport. bi tamit yow yaa. Oh, yaa koy transporter sa bopp. avec ça boo leen jaayee benn prix bi ñu ne gars yi dañoo aj prix ak ki denc di xont pour wut dara. kii day wut kii di a am mooy ki téye di sang. xarit sang ma ma daal ñaar la daan def. daal xaw ma xaw ma xamatuma. ma daal 400 la doon def kon kon dafa doublé. dafa doublé waaw. xar yi war di sangu di lekk di naan. xar yi di lekk lu daan jar quatre cent léegi huit cent lay jar. ba la gën a métti. àll ba a métti xam bokk lan lan mooy message bi ban message ngay lancé. message bi mooy état moom du jàppale kenn. mooy na gars yi génn jënd ko xar bi xaar ba suba moom. Thiolou Fin film boo koy seetaan da ngay xam ne bande bi Thiolou Fin lay dee. Hmm. yow mi di xaar tuuti fee soo ko doon dee da lay dab ndox bu manqué yu sew yi ñooy manqué Seydou Sow Seydou Sow xaalamaa yooyu joxal ma Fallou man Fallou waaw Fallou Fallou yow xar daawul lekk filaawo ah man de sax xar mosuñu lekk filaawo de hmm. waaw mais xar du dundee filaawo ah man mosuma ko jox sama xar ah sam père moom waaw waaw moo tax may laaj mais man moom loolu mais xar day lekk filaawo kaw taw maanaam ci sa poche ak sa euh, tamit sa entourage yi instant yii boo moo des tey desoon sa biir dund nañu. mais mais xar day dundee filaaw. dundee moom mi ngi ñëw maa ngi koy jël après kon xar dafa dundee filaaw. waaw ci zone ci zone waaw man moom man moom xam nga moom moom xam nga moom dund na côté boobu. Mhm. moom moom këram mu ngi côté boobu. moom mhm. mais mhm. moom dund na mais man su may xar. ripaas la ñuy lekk ngooñ mboq bësi bële. loolu lépp instant bi dafa cher. non dafa ndax cher. kilo deux cent la loolu mooy ngay laajte ndax sëriñ parce que deux cent la daan jar. léegi lay jar. te li a la man sama man sama. waaw man sama fas. génnal ko génnal ko man jàllaa kat garaaw. man sama fas damay damay man sama fas man sama fas. du ñu yor fas laa yor kii maanaam moom ñoo ñoo dëkkandoo si fas ak saret mhm. kilo dugub laa ko dañ ko doon jëndee sax cent soixante quinze cent cinquante cent soixante quinze cent cinquante kilo dugub cent soixante quinze cent cinquante waaw waaw mais léegi kilo dugub xam nga ñaar lay jar cent cinquante franc léegi cinq cent lay jar kilo dugub léegi cinq cent franc lay jar mais xam nga si benn côté si benn côté man du ma jël lépp lépp lépp lépp ko état. kan nga koy sëf eh, responsable bi. est ce que comprendre nga du ma jël lépp lépp sëf ko état. ndax mm-hmm. mënul defar lépp. ah mais mais état l' état c' man daa xool naa foofu noonu état état état c' est état. Mm-hmm. mais état defar lépp. ñu léegi responsabilité bi balaa balaa daa balaa daa di defar. Mm-hmm. ñun suñu jëm bopp ñun ñoo jëkk a defar. ñun ñoo war defar. waaw waaw surtout nag ñu yéenante jàmm. ah waaw. sa baat ca kaw. waaw nañu yéeneente jàmm bu baax. waaw waaw alxuraanu karim. yéeneente jàmm man mu sama morom tey gis nga kii ni ko yàlla defal. Mhm. mu ma muusag waane ci àddina ba yàlla du ko defal. ndax bi nga yàlla di indi fii taagu mu ma. Mhm. non da ngay ñëw fii da ngay ñëw non yow da ngay ñëw non da ngay ñëw toog yow na le toogal na le kii joxe na doole yaa pare yow toogal na le toogal na le est-ce que nga est-ce que comprendre nga mhm. li kii war a am na du ba man ma xañ ko ko ba man ma mun ko ko tere am mais xam nga soxante bi moo bari ci dëkk bi tey te yaakaar naa ne gis nga nit boo nekkee ak nit sax mu doon ndaw nga gis nga muy góorgóorlu si benn mbir di ci xuus nii mu leerale yow kii sàccul fenul fenul u ngi góorgóorlu maanaam di ñafe te li muy ñafe yëpp di reyante maanaam pour am lu lew mm-hmm. ñoo tax te pour ray bu ko neexoon mu def ko may moromam mm-hmm. barke alxuraanu karim mhm. kenn gënu la capable mhm. kenn gënu la ñeme kenn gënu la am fit kenn gënu la mhm. xam booy jaar pour maanaam def tey tey tey tey bu la neexoon tey tey addina yëpp xam la ci lu bon la pour ñu lu baax nag a jafe na jafe mais pour ñu xam la ci lu bon tey bu la neexoon tey tey tey addina bi yëpp di la mbab bi mais ab doomu góor bu ne da war a jomb loolu ci sa àddina est-ce que comprendre ñun ay yaay baax la ñoom am ay papa yu baax dëkk ci famille bu baax est-ce que comprendre yor immeuble yi ni yor kaat-kaat yi di dawal ñun ñeew ñu leen de te barki Serigne Saliou Mbaax ñun dañuy ñaan yàlla ci suñu si kattanam ak mbaaxam yàlla nu yàlla sutura kattanal ñu ba ñun suñu jëmi boobu laa la suñu jëm yu xeet yi ñuy tabax ay kër sax di ko jox ay néew yi doole ñu siy dëkk te duñu fay dërëm barki Seexul Xadim sama xol laa koy tudd di koy dagaan di ko ñaan yàlla ak yonent bi Serigne Touba mi ñu yaakaar barki Seexul Xadim te barki alxuraanu kër ñun suñu borom na ree dimbal may ñu am loolu noonu te duñ ko defal jaamu yàlla yàlla bu mu yëg si dañu jéggal ñun dañu jégg sax suñu famille mais barki Seexul Xadim laa lay waxal ñaan nañ loolu yàlla di ko def dayaan saa su ñu dimbali ñu kàttanal ñu ba ñu ba ñu tax ay dëkkuwaay ay nit ñi ci dëkk ci dañu fay dara ndax metti na ku ne ku ne ku ne Alquraanu Karim dëkk ci location laay war ki weer ak weer comme une semaine dafa tar am na ñoo xam ne tey barki Sëriñ Bamba Mbaaxe da ngay daje ak ñoom sax laa wax billaay war kitaabi ñu lay ñaan sax benn wet mu leer la yow kii tey xool mën na la sax jur uh-huh. te bi muy juddu wuloo mu ñëw ñu la ñaan barke alxuraanu karim mu leer après da ngay yëkkati la jox après day dem mais yow da nga xam ne kii tey may nga ko tey mais est-ce uh-huh. mm-hmm. mu dem est-ce que suba dina am suba may barke alxuraanu karim metti trop trop trop trop trop trop si yenn gars yi barke alxuraanu karim bilaay moo tax ñun ak lépp sama moromu jeunes yi laay waxal ak lu mu métti métti métti nañu gën a góorgóorlu gën a rayante suñu laay barki alxuraanu kay ndax fii kenn mayetul kenn kenn dimbaleetul kenn su boo toogee di xaar mu dimbale wala mu teg la loxo yaa ngi nax sa bopp barki alxuraanu kay nit yaa ngi ñafe sa laay pour yàlla daal ñafe ko non déggoo ko ñafe ko la ko suñu jëlee ñoom maam Seera Fall moo ko wax nee na lépp li nga xam ne ma la su waay liggéey da koy maye góor war na ko jomb ñaan lépp lu liggéey di maye góor war na ko jomb ñaanu góor sax laa yàq góor war na ko jomb di ñaanu yàlla nag moo bind ko yemalewul wërsëg yemul mhm. est comprendre mhm. mais nit ki tey boo bu sa wërsëg jeexee rek xamal ne dee saa boo jugee sabab yàlla moo xam na xanaa mu may la nga xeeb ko mais nit ku newee sa wërsëg fu mu toog est-ce que mhm. nag mooy maye mooy tey see nit ki nit ki di nit ki di ko jiitu si àddina mu ñëw am loo xam ne yow amuloo ko ah, waaw boo xoolee si Macky rek amaana mhm. tey moom amaana tey. jaayam jaayam jaayam papaam yor yi moo yor wërsëg. Mhm. Mhm. ay wujjoon kii man ak moom ñoo nekk tey ñoo juggoonoo ñoo yaroon ñoo maagoon kii jéggi na jéggi na rek daf may romb ndax lan am na yàlla mu ngi koy ko war a kar dama di tànkam. aw sa mu bàyyi loolu quoi. joxal ma ko. joxal ma ko sa euh, la. Mamadou Lamine ndi fa ñoo ko bàyyi séeréer jàmm tukulóor Mamadou Lamine fekk naa leen fi ah ngeen dund ambiance bu nice nag franchement parler parce que euh, bu ñu nee euh, ndawi réew mi dañu war a bokk nday bokk bàyyi di xàccandoo di dóorandoo mën naa ne lii exemple la ci parce que yéen ñëpp da ngeen da ngeen da ngeen bokk benn benn quoi benn saa di ñoom xàccandoo dóorandoo di élever teg seen i xar def benn équipe def benn bloc di jaay waaw liggéey loolu mën pour tabaski beeg yooyu noonu beneen sa avant tout ci euh, loo mën a wax dèjà ci euh, ni ngeen di dundee fii. li ñu dundee fii mooy maanaam comme moom doomu si a fàqal ñoo ko fàq. mais tey jii maanaam même bu ñu sax yi presque ñooy nekk sa kasa. ñooy nekk loolu yàgg na. bu papaam nga mais yéen a bokk génération. mais ñoo bokk génération. dañ mhm. doon ñëw fii. Mhm. di départ am 42 mille 32 mille. ay 27 mille. jënd xar bu ndaw. jaayaat mhm. noonu lañ déparé. di def ndànk-ndànk di boole ku nekk di yar benn bàttal ba dégg kii yar ñaar noonu la ko maanaam yàgg na daal du loo xamante ne kii rek. wala loo xam ne du loo xam ne da ngeen tëb tëb rek nekk ci mais da ngeen ci yàgg. ñun bañ ci nekk boo seet seetee buñ ay xale yu ci nekk. Mhm. da ngay compte fi ay mag la ciy boobu léegi nag yàlla dañu si baax ñu si kenn musu fi def loo xam ne nag toll noonu wala nga def loo xamante ne déwén doo ñëwaat. Mhm. ndax li depuis que suñu ñëw di dem. Padois. di ñëw di ñëw di ñëw bi nga xam ne moom lañ fal. ñu mhm. ngi màkk ñu ngi koy ñaanal. waaw Fatou président wu lan. président Doro. waaw moom ci boppam. boo seetee te kii bi la newoon mais à la fin lañ nga yor kii maanaam benn kii moo xamoon ñu préfet ñëw déplacé affaire yi ñëw andi fii looloo waral looloo waral. yaa ngi dégg léegi moom tamit jiite la beneen chose bi tamit mooy comme ci jiite bu mu jiitee tamit. lépp da koy teg ci yoon. mooy wàllu ripaas. kooku tamit da koy sant ministre. ndax tamit. am na ay jamono daaw fi am. Mhm. bu demee ba fi am ndax wala loolu tamit lépp tamit ñu ngi delluwaat ñu sotaat président Macky Sall. Mhm. waxuñu pour politique wala waxuñu pour dara. non waxal waxal bu ko defee. Mhm. sant loolu la ko. waaw mais ñu ko doon jënd mu cher. te wax dëgg boo seetee tey ñu ngi ñu ngi ñu ngi dajale. parce que démb kenn dajale gannaaw suuf kenn. 14 mille 14 14 mille lañ ko doon jëlee te ñu ngi ko jaayee 5000 5000 5500. 5200 waaw kon ni ko subventionné. kon xamal ne tey kon xamal ne tey loolu dimbale nañu ci benn. état bi moo ko subventionné. waaw waaw waaw mais tamit tamit sa waay ñun on est

li mu war nii li élevage moo waral lii. waaw loolu la saako xel yi day métti. te loolu tamit lépp boo seetee mi ngi jóge ci bopp bi muy. saako bi nii saako bi nii balaa balaa ripaas yi di ñëw saako bi nii démb dix mille laa ko jëndee. bii bii bu vert bi. Mhm. diine laa ko jëmee démb. te pourtant déenee bu zone bee moo gën bu bu vert bi te man cinq mille deux cent lañ ma ko lañ ma cinq mille deux cent benn saako bu nekk cinq mille deux cent. kon mu ngi jàpp si affaire yi tamit benn côté tamit. ko. nangul ko waaw man ñëpp xam nañ man. politique mais mhm. ko. non non non baax ñu wax. waaw mënoo ñëw tamit benn site mu interroger ñu ah, ah, dafa def lu baax fa lañ fa lañ nga wax ko. bu ko defee lu jafe bi ak leneen ak leneen boobaa dina mën a ñëw ak yeneen ak leneen rafet na jàmm ci yow joxal ma micro bi sa waay beneen affaire tam laa waaw dafa am benn jigéen bu mhm. ma sant ñëpp dama sama benn jigéen foo ma sant santal ñëpp sax santal ñëpp ñëpp ñëpp waaw sant ñëpp moom santal ñëpp soxna Mame Diarra Diouf sama dëkk 26 fii Mame Diarra Diouf moom lañ déglu waa waa si day jàpp si affaire ndaw ñi leneen ak xëy ndaw ñi ak yeneen ak yeneen ñëpp dañ ci jàpp direction gox bi mais maanaam ay maanaam ay actes yu muy def da ngay gis ñu def ay actes yu rafet. ay gestes yu naaj gestes yu naaj yoo xam ne ba tey bu ñu jógee foofu dama damay sant sama benn grand mi ngi fi grand mi ngi si man tamit moom si man ñëpp xam nañ politique mais tamit nit bu defee jël te tax na ay xale yoo xam ne ay ndaw yu fi nekkoon tax na ñuy xëy. di dimbali seen waajur mën nañu gis ba pare xale yoo xam ne démb kenn xalaatuloon ñii naka suñ nii dina ñëw ba demee nii. Mhm. Mhm. Mhm. am na ay policiers yu loolu mooy réinsertion sociale. ndaw ñu nar a bon nga jël tegaat leen ci yoon. am na policiers am na policiers yu fi nekkoon ñoom tamit ñëpp liggéey. dëgg fa la mais tam moom bu mu ñëwee dafa dolli. ñu gars yi naan ku ku yokkul yaa wàññi moom nag yaa yokk wàññiwul. waaw wàññiwul boobu lañ soxla nag. te boobu li te man ñaar ñi may sant ñi. moom lii mais man li ma gëm. mooy xam nga man. ku defar jeunesse bi rek yow la defaral. loolu ku defar jeunesse bi man amul benn policier bu taxaw mu ne jiw day ñëw taxaw ko dañ ne ko même boo ma imposé yor ma numéro yor ma numéro mais dafa nga xam ne ak yoo xam ne bu koy def rek laaj nañu sant di gërëm beneen chose moom tamit mooy ñu fàllu ñu ñu fàllu ñoom Assane ñoom Sidi ñun ñëpp ñoo nekk fii gars yi bëri nañ ñoom Omar suma doomu nday ñu nii waaw Assane ñoom ñëpp gars yëpp tamit ak suñu benn grand fu nekk mu ñu waaw xam nga ak gars yëpp daal maanaam daal ñu dendal suñu mbokk ñoo xam ne ñu dëkkandoo sama mbokk séeréer ñëpp ñoom ñëpp tamit même chose ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw di wane ñun ñëpp tamit comme ni ko Assane ñoo bokk day ñoo bokk bàyyi mm-hmm. waaw kii mën na nekk fee kenn mais ñëpp benn lañ mm-hmm. ndax buñ jógee fii suba ñun ñëpp dañuy delluwaat ci kër yi mm-hmm. ku si tase sa morom tamit fu mu mën nga toog ku ku am naka suñu noonu tamit sa morom day teew mhm. kon maanaam pour wane ne lépp benn comme ni ko Fallou waxee sànq laa ko tëjee mhm. maanaam nañu rafetal xol yéene lu baax nañu rafetal waaw foog ñu defal loolu moo nañu rafetal nañu rafetal boo seetee li ko gën a yàq fu ne jamono ji toll nii loolu ci mooy wax wax dem ci waxal ci lu ñaaw dem fee waxal ci mooy problème yi ko indi yëpp loolu mhm. problème du question de te sax yooyu yëpp ay kii la li ko li a andi daal mooy wax xam nga wax wax rek na tax nit loo xam ne bung kun je đâu ko la ndaw chúng ko dégg bu ko dégg man ndaw ñëpp lañu xoolal waaw am na yoo xam ne àdduna jaru mhm. mooy yi fi am yëpp àdduna jaru mhm, mhm. rafet ku yàlla jox la ko jox mais ci kaw mu rafet mu rafet lépp na rafet laa ba raw ay jële yi fi nekk yëpp jaajëf yàlla dina fasal ma sawaay maa ko na waaw ah, yàlla baax na yàlla yàlla nañ yàlla suturaal yàlla nañ yàlla suturaal ziar. dolli ziar maam naka yi tey. sant yàlla micro bi na jege. tur bi nan la. maa ngi tudd Assane Faye. Assane Faye. Oh, man nag tey nag tey nag danu ma ci de ma làmbaat samay poche ba xam est sama téléphone mi ngi fi. bu ma toogee gis sama téléphone yaa ko jël. déggoo fayal do deg ñun ne ñoy sa buur. fay fay wa fay ñoom lu ñuy fay lu ñuy fay. lu ñuy fay. wa bëgg ñu fay la wër bu dem loo bëgg fay wa wa ah, kon jeex na. ah tegal boobu sa baax la. <laughs> jubul soo jubul mais dama ñëw seet waji waa ji ah bi la ñëw seet hmm. euh, Yatan Za avant tout lo mëna wax ci mom wa Yatan mom mun naa la wax ci mom lu bëree bëree bëri bëri bëri lo xamantene sax gox mu dëkk mom xamul ñu ko sax ci mom fi ci Grand medine ci Grand Médine parce que mang mom moom jëmmal la tey soog a ñëw amul lu ñu defoon ñu deful maag moom ñoo dem fanaanandoo di yewandoo di xàccandoo di dóorandoo mhm. mbapat mhm. ñoo ko defandoo ñoo bërindoo mbapat ñoo defandoo kon yow bëri nga waaw mbër sa waay mbër la woon. ak mën a bëri. allahu akbar xoolal lii rek. wallaay ah. moom nag ay loxoom laay jaar moom mooy sama mbër. Ah. instant bii moom laay jox lenge yi moom laay jox lépp. Mm-hmm. waaw. kon daal yéen nekk ci ginnaaw instant bi waaw ñu nekk ci ginnaaw. tey sax lépp moom la. danaa bàyyi bëre waaye mënoo bàyyi làmb. non ba dama bàyyi bëre parce sama yaay moo bëggul bëre moo tax ma bàyyi. mère bi moo bëggul woon. sama maam bu fi nekkee. su ma tàggoo sama yaay sama yaay da dem bañ wante sama maam moo ma dem bàyyi. Mm. su ma bàyyi na maamam maay man maay bàyyi su bañee man su ma nangoo danay am dama nga jëli ji ñii ñoo dem yóbbu ndeysaan turu mbër mi nan la woon man ah ñoo ma dem wax baagal art baagal baagal art ndeysaan noonu nga daan bëree waaw moom laa jël ku tur googu nag laa jël kontur mhm. moog si tam ma jox si Zarko ndeysaan moom la Zarko dem wax noonu Arafas ah. kon kon daal seen fii kon seen <laughs> grand bi fii nii fii làmb dafa am doole. benn bi làmb a na fi. làmb yàgg na fi am doole. man maa ngi dëkk ba grand yow. ndeysaan asalam Patte d'Oie. seen Patte d'Oie kii day foosee foofu damay foosee. ndeysaan ndeysaan dawalandoo nañ saret defandoo lépp. làmb amul daal lu ñu deful. moo tax tey waat ngeen mën a ñëwaat bokk benn gétt bi. bokkaat benn gétt di liggéey. chaque année nag mm-hmm. ñooy bokk benn gerte chaque année opération tabaski opération tabaski mm-hmm. chaque année benn gerte gi ñoo koy bokk mm-hmm. mais liggéey bi liggéey bi du ma ne ba xam yomb na xam liggéey bu yomb amul non non liggéey bi moom wax dëgg yàlla moom jur moom yombul mm-hmm. jur moom da nga koy gënal sax sa bop da nga koy gën ba gënale ko sa bopp ba gënale ko sa bop parce que moom mënul wax mënul xiif na la dama xiif mënul naan na la dama mar naan te yow loolu lépp yow yaay xam rek yow yaa koy xam def ko ci moom da ngay xool maanaam yow nu ngay dundee ak sa bopp nga di ko def ci moom tey soo ko defee ci moom yàlla dalay may nga gis résultat loo bëgg danga ko ciy am wante soo ko bàyyee bëgg a def sa bopp mm-hmm. tey soo bëggee soo soxlaa tey deux cent mille wala trois cent mille doo ko ci mën a am parce que ko yaree la da nga ko joxul mu lekk wante ñun yàlla defal nañu jur lañ gën a bëgg dañuy yar ay xar dañ yor nañ ay nag lépp ñoo ngi moom pàq ba fële na la ñooy takk ay nag ak ñooy fas tout bàyyiwuñu dara élevage bi la ñuy dund ñun parce que Serigne ba si ay pitax lépp loo loo wax client yi waaw client yi daal moom ñu leen di wax te xar yu fi nekk moom yu fi des yu fi bëri yoo nga gis ñu takkal leen buum yu xonk instant ya xarul dénkaan mm-hmm. yu ko ëpp fii ngay gis ni yu ci bëri yu ci bëri jar na ngay gis ni jar na yu tafu ci biir yëpp jar nañ yëpp jar nañ ay ndénkaane la mhm. ku ci gaaw nag nga mun a ñëw wut si mhm. ñëw teel a ñëw jënd si mhm. teel am loo tabax seen nga teel koo def teel a ñëw ut si daal xar moo gën moo gën nit ki di toog ba bañ naan tey la wala suba ngay soog a mel ni bee tabax si bële paase nga ñëw di jooytu xar doo am xar nga gis fi benn mbote bu ndaw ñun la si fayeeku loo xamante ne maa doon taali. Hmm. parce teel a ñëw jënd lu ngay jënd yóbbu sa. Hmm. d'accord man daal kii boobu laa am lu ngay am loo wax gars yi. jàmm ci yow. aja fay eh, yëfin sa yëfin sa yëfin sa yëfin sa yëfin sa dégg naa ne ay nit yi yëg naa loolu de gars yi koy wax dañ koy wax ci réew mi di ko wax ci dëkk bi lan mooy nervi nervi nee nañ yéen yéen yéen lañu woo fay leen xaalis ngeen dem di dóor askan bi yéen yéenay def loolu ah yéen na de man de yéen yéen ñi yéen ñi mbubboo sécurité bi yooyu noonu dégg naa dañ leen di woo di leen fay xaalis ngeen jàpp booy di leen di leen tabax seen ndeysaan xoolal rek loolu nit ñi ngeen de nit ñi ngeen de man di dégg te man Grand Médine fii may ma développé maa maa ñëw maa ñëw maa ñëw waaw mbër noobul la mbër noobul la ñu ci xam mbëri ay bandi lañ de ay nervi lañu billahi wallahi taala mbëri ay defe naa lañ de ay nervi lañu exemple exemple gér bi bii ay baloraay million moo xam ne waaw xam naa loolu waaw waaw barke alxuraan après après eh? suñu ñàkk rek moo ñu ko may. Ah, man parcelle Grand Médine fii dañ leen lim dañ leen cité ci ay ay nervi yi. Albouri Albouri Albouri eh, astafurlah Edouard Rako Albouri nervi la Calember nervi la xaw ma kan ak kan ak kan man kay maa déglu liste bi damaa toog naan mooy sama nay tey laay de ay eh, sama booy ay nervi la ñu waay. yoo xam nga yoo xam nga yoo xam nga gaay yoo xam xam nga gaay bu baax. <laughs> étoile laa déggante mu ne ma grand bi ah. étoile ma grand bi. man de foofu laa ci yem man de lii laa ci toll. xam nga yow xam nga gars yi bu baax yow étoile kañ la bëre. yàggul moom ñu daan ah bu koy barki démb la yàggul.

ginnaaw man de loolu lañ ma woon man de jikko yooyu lañ ma woon moo gën a garaaw tay mooy comme li ma doon wax sànq rek mm. yàq nit baaxul yàqante bi yal nañu yàlla musal ci yàq nit uh-huh. tey tey tey nit bi yàq noonu tey amaana tey barki alxuraan karim laa lay waatal li ngay wax noonu ci moom mm. dina si am ñoo xam ne dañ si jaare bëgg ko dina si am ñoo xam ne dañ si jaare bañ ko waaw te lay noonu li ngay wax ci moom dara ci moom te amaana sax yow kooku barki alxuraanu karim laa lay waatal ma dugg te kaamil ma jóob sama loxo étoile jolof calambeer néeguñu xoo sax ni parce que man vidéo bu ma seetaan waa ji mënul wax sax calambeer calambeer la wax calambeer calambeer calambeer am na ku nekk parcelle ku ñaan calambeer man kii de calambeer la bëgg wax tay xama tay ragal yar yàlla la ragal ragal yar yàlla la ko mais di caagi ni tay yow boo ànd ak diw nervi nga boo ànd ak kee doo nervi affaire yi du loolu du loolu affaire yi xamal la man mooy comme li may wax manipulation da ci am loolu loolu la demee nag affaire yi xamal la xamal laa gëm man xamal laa gëm man gëw ma nii naa mel man nii laa gëm te man yaakaaruma ci doomu aadama bu yàlla sàkk ci kaw suuf man suma bopp laa yaakaar barki alxuraanu mais ku mu nekk sax far fu la ne ah déggoo ma la yow yow waaw yow yow sa biir kër ga dangay joxe sa dépense laa la ñu toggal la laa la say doom daf leen ko wax ne maanaam lii. Mhm, mhm, kay. léegi laa bëgg te ay yaa joxe sa dépense. ñu dund naa ko ku nekk am nga ku la neex mi daan baxal. parce que man lenn laa lay wax man du ma xeexal kenn du ma rayanteel kenn xam nga lan moo may may. man mhm. sama ñàkk moom la ak sama doole.